maman ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, ñu gis ne nag tey euh, ñëw nga fi nga xamante ne moom mooy présentation ceebu jën bu Papis organisé tey lan moo nekkoon sa teewaay. sama teewaay mooy euh, déjà en tant que sénégalaise et africaine et grandi à Saint-Louis et née à Podor déjà looloo tax ma ñëw teew ci ceebu jën Penda Mbaye bi. ndax Penda Mbaye moom histoire la boo xam ne yàgg nañ ko dégg depuis bi nekkee xale ba léegi. sooy togg sax su ceeb bi xawee manqué dara ñu ne la yow de Penda mbay wàllu la ñun nag bëgg naa pen ñu bëgg nañu Penda Mbaye wàllu ñu ndax xam nga Penda mbay dafa fent rek ndax euh, jaaxle rek moo taxoon mu mu fent ceebu jën bi te jour bi mu fentee ceebu jën keroog la fent ndoket parce que moom moo fent ndoket ndax amul fent ceebu jën moo fent ndoket amul woon lu mu sol pour taaj ceebu jën bi mu jël rido bi daal di ko def ndoket sol ko. tax ndoket ñëw. parce que même jour la fent ceebu jën fent ndoket waaw. mu mel ni ne rek ndar ndar yi kenn dootu leen wax si mën a togg Penda Mbaye boo waxee dañ naan ceebu jën ndara ko moom. ko moom ndax euh, xam nga waalo gi ñu bokk te Penda mbay ñëpp nee nañu waalo waalo lan ñii ñu nee ñu waa Rufisque la mais ñi nekk Rufisque ñoo nekk waalo ñu nekk waalo ñoo nekk ndar c'est la même chose parce que yëpp Sénégal la. la nouvelle génération nga xamante ne dañoo déraciné wu duñu fàttaliku dem xamuñu sax ñaare seen cosaan fan la tey ban conseil nga leen di jox seen parents yi la ñuy blâmer wala ndaw ñi la ñu war a wax ñu dem gëstu ji. de xam nga ñun suñu génération ñun ñi ñoo rate suñu éducation doom parce que ñun yar nañ ñu de ñun suñu génération nous a montré nos valeur et nos cultures war nañ suñu cosaan ak suñu aada ñun ñoo teggi suñu loxo bëgg nañu nag léegi xale yi ñu dellu siwaat ci cosaan gi ñu gëstu ci cosaan bi bu baax ndax nit amul lu muy cosaanam. tey jii nii bu fekkente ne am na lenn loo xamante ne wax nañ koo yokk parce que gis gëj nañ laa gis nga génn macha allah donc lii nii mën na mën nañ wax ne ni lu la ñor la tam en tant que styliste tey ji gis nga fi ay colin yoo xamante ne gëj nga kaa gis amaana tey jii ni ban conseil ngay jox li nga xamante ne mooy la nouvelle génération ak papis mi nga xamante ne moo organisé. papis dama koy organ yàlla dëgëral taxawaayam yàlla sampa ko bu baax yàlla vraiment yàggal ko fii yàlla may ko xel bu muy fan te defaree yu bëri ndax organiser yombul organiser dafa jafe parce que nga nga nga def yombul parce que kenn du la ne déedéet ba dañ lay seetaan te yàlla buñ ko seetaan yàlla na moom mu mun a defar ba ñu pérenniser euh, affaire bi ba at bu nekk ñu koy def ba ñëpp ba lépp fekk ko ci fekkee périgu yoo leele nga def. wala man maa defar yoo leele. yoo leele maa ko defar. en tout ah man maa ko defar. na jàpp na la lool merci li koy ñaanal yàlla rek yàlla nag yàlla saxal lépp yàlla xale yi ñu gestu ci seen cosaan nit amul lu muy cosaanam waaw mag ñi léegi ñu dellu siwaat di jàngal xale yi seen xam-xam ndax xam-xam kenn du dee yóbbaale ko kenn du ko bàyyi fii danga koy yóbbaale kon nañ ko fi bay waaw merci merci beaucoup.